fàtte leen li a ñaan te dolliwaat la neen ñaan yoo xam ni yu yes peq la mu dar ki nga xam ni mooy ñaancoo bu ko mu mën a li nga xam ni mooy saison bi nga xam ni moom la dëgmal wala boog genn wàllu saison gi nga xam ni moom la dëgmal te gu njëkk gi mu doxaloon ci lu am solo doxaloon ci lu am importance tey ji nag mu del siwaat aduna bi wala ngal kàpp wane ab potom jaaba jonge gone gi nga xam ni fierté nationale la fierté la ci Sénégal ndax bi nga xamee ni ba léegi blessé na daanaka journal yi bind ci wàllu sport sax suñu bindee day mel ni li nu bind amul jimbo amul xorom ndax saful dara gone gee manqué woon waaye fi mu toll nii ah, sàppali na ah, safle ndax moom ñëwaat na moom ñancoo entraîné ah, tàggatu goo xam ne image yooyu ngeen gis ko gone gi ndànk ndànk lay def bu ngeen gisee na muy doxee ma ngi bàyyi xel di leen bàyyi xel bu baax a baax yéen yi nga xam ni yéen a ngi koy topp yéen nga ngi koy ñaanal ci li nga xam ni mooy match yi nga xam ne dëgmal na ko kon ñun dañ doon ñëw ci premier entraînement boo xam ni gone gi def na ko premier entraînement boo xam ni daanaka ñoo koy topp dana seral xoola bu waa Sénégal teyit daanaka entrainement boobee euh, dañu koy jël euh, jéggee leen ko yéen ñi nga xam ni euh, yen a nuy topp ci li nga xam ni mooy Aladji Malick TV di leen wax ni daanaka sunu compte TikTok bi nga xam ne moom lañ yoroon am na tuuti ay jafe-jafe ndax xam ngeen TikTok ak kii bagaasam loole tamit daanaka téewul fëgg nañ ci beneen table ji beneen compte boo xam ni bu yees peq la Aladji Malick ngay wax a yéen kon ngeen abone bu baax a baax yokk li nga xam ni mooy abonnement yi ba boobee compte bu ñëwaatee fekk fii doxal lu am solo loolee am na solo bu baax a baax information yi ñi ngi ciy ñëwaat ci kanam tuuti jërë ngeen jëf